moo ko créé fee benn sénégalais citoyen simple di ci liggéey di ci gagné xaalis nga xam ne tey buñu ne Pastef dañoo war a jàppale Abdou Diakhaté waa Pastef yëpp dañuy jël seen ñaar dërëm seen ñetti dërëm dem dugal ko foofu état di mën a topp transaction yi mais état bi deful loolu da xam nga def dem tëj Copper Express jàpp ka moo mun tëj kaso ci sénégalais bu doon liggéey transaction Baye Diakhaté du dara nañ leeral tax ñu transféré ko ko rek ami jàmm yii ma a wax ci émission bi Mouhamed Ndiaye sa benn naataango journaliste dafa wax ne daf doon jot ay ma ah, Mama Ndiaye deful dara baal jàmbur. waaw ah, dafa liir ci journal bi. Ah, dafa loolu faaw ñu koy leeral. waaw dafa liir gis naa ñu koy sànni. xel naa ñu asseré wu si moom mais Mouhamed Ndiaye def mais nag dafay liir liir bu arrogant. mais c'est-à-dire non c'est-à-dire attends attends gis euh, yéen journaliste am ngeen ko am ngeen nag suñu ñëwee ci plateau yi bu ñu tuddee benn journaliste non journaliste bi Mouhamed Ndiaye dafa ne solidarité Mouhamed Ndiaye comprendre naa la loolu comprendre naa la mais mais man nga bàyyi fekkoon ne dafa def loo xam ne journalistiquement dañ naan kii lim def du yoon xam nga xam nga daa mu war a wax léegi xam nga daa mu war a wax léegi presse moom journaux yi li muy wax moom bind ko fekkul fi ñu ko bindee xamul fan lañ ko jëlee mais xam nga daa lu ma la wax léegi te loolu dafa dafa dafa dafa dama ko teg sama kaw doog la koo wax ah. mooy Mouhamadou Mouhamed Ndiaye jàpp naan dina seeraan suñu émission bu ma ko difaamee xam naa ne dina ma porter plainte te yoon na jaar ci fi mu a fi mu war a jaar ak man dana fa jaar ak man wala ma la wax léegi te dama cee commencé sama bopp Mouhamed Ndiaye bindut li muy wax ah waaye la façon de la ay bàyyi jàmbur bi waaye façon bi muy waxee day wax xam nga façon wax day wax bët rek mën naa la ci xool nit ñi xam ne ma bëgg a wax cest à journal bi ko bind amatul chance xam nga lu tax moom lañ fay pour mu jaay journal bi moom ni mu jaayee journal bi kan lañ fay Mouhamed Ndiaye fay pour mu jaay journal bi mhm. moom ni jaayee journal bi loolu moo am wax fi mu toll nii mooy que dafa wax ne Amidia daf doon jot ay transaction xam ne moo ko dugal kaso transaction yooyu daf doon jóge ci finance islamique mais journal bi moo ko bind n'est-ce pas bi mu génnee xam nga lu tax mu interpellé Mohamed Ndiaye parce que journal bi mu ko bindee ki ko jaayee ni mu ko jaayee ak justice bi mu ko jàppee ak tuuma yi mu teg ci kawam transaction bi trente mille francs la Aminata daal ba amee rek ñu bañ a suñu émission. jàpp ci journal non ngeen bëgg a teg maa ngi doon comprendre li taxoon Macky Sall demi presse bi mu délivrer mu bañ maa ngi koy comprendre parce que yéen li ngeen bëgg kenn xamu c'est-à-dire da ngeen di neex après suñuy wax ngeen naan diw journaliste kese la nangam naan gis nga même boo dee jaay journal li naan parfum bu neex làmmiñ du ñu yéen li ngeen ciy bind ko jënd pour déglu ko fexe ba dégager ci responsabilité am na ci part de responsabilité journal bu jar rek li tax mu jar mooy façon bi ñu ko revue de presse façon bi ñu ko revue de presse est dafay charger nit wala dafay décharger nit est-ce que tout simplement ne am na benn femme bu jàpp. dafa a am benn femme te journal bind Amy Dia. bu jàpp nañu ne Mouhamed bu ñu ko jàppee ci bu ñu ko jàppee ci Imam moo ko chargé ñu ñëwaat ci le président de la république Bassirou Diomaye Faye bi muy defal moom émission ñu ne Mamadou Ndiaye da ko chargé c'est-à-dire bu leen ñëpp teflee nga tooy ñu bañ a concentré suñu émission ci moom parce que amuñu ma benn solo. non dama dama doon leeral damay bañ rek maanaam. mais li may leeral dana xam sénégalais yi wax may wax. ñu loolu mën nañ ko romb mais man dama bëgg sénégalais yi bàyyi xam nga ñëpp sénégalais démb ba tey li am solo ci kawam loolu am solo ci waxtaan loolu loolu am gëñul daal li am solo ci waxtaan mooy ñi ñuy dégg mooy yow wax nga man wax naa nañ bàyyi ñi ñuy dégg ah, kon baax na on continue loolu moo solo ci waxtaan xam xam nga maa ngi wax ci rapport yeeg affaire réduction des comptes. Mm. xam nga amoon na fi en 2012 avec le président Macky bu demee ñëwee waxoon dañu leeral. te fi mu mujjee ñun sénégalais yi xam nañ ko est-ce que nag loolu bukki boobu mattoon président Macky Sall bu mu jural ko jafe-jafe. nañ yàlla bukki boobu du ñu matt. c'est-à-dire le moom boo koy tudd li ñu tudd loolu bokkaale la. ah parce que ñu ne moom bokkuñu ni ñu yore réew te bokkuñu fu ñu jëm te jàpp nañ ne ñàkk bokk moo tax sénégalais jëlee ko fi jox ñu réew mi te insha allahu rabbi seen liste vingt sept personnes yi ñu jëloon ñoom ba am ministre boo xam ne bi mu demee Kédougou dañu jël hélicoptère def jëli ko muy seen enrichissement illicite yi ñu ñëw ñuy atte enrichissement illicite en pleine audience ñu dàq ci procureur de la république message ko ne ko dàq nañ la bu ak ak feeñ ci xewoon yëpp di ko def ay règlement des comptes politiques tey ngir wan na la duñ jëm foofu ministre de la justice lu njëkk wax mooy rapport yi danañ fexe ba du am benn acharnement te loolu ñu ngi koy garanti Sénégalais yi di leen wax ne rapport yii nii nga xam ne dañ ne IGE Cour des comptes IGE moom ci mën a am rek amul tax génnul ba tey même IGE bu génnee xam nga rapport yi moom li ci am solo mooy le président de la République nee na bépp rapport bu génn dañ koy publier kon loolu yaakaar naa ne amatul lu ci jaaxal senegal yi ay ah, maa ci sama conco IGE moom gisaguñ maa ci teg sama conco maa ci teg mbagg maa ci teg samay tànk IGE jàpp naa ne seen rapport bu pare rek dina génn li ma jàpp naa parce que président mënul taxaw ne rapport yëpp dañ ah, rapport yi moom lañ jàpp mooy pare woon bu yàgg président Macky Sall ni mu ko waxee moo ci tegoon tool rapport xaj na fi leen ko pare woon na waaw effectivement mais dañu rapport yi pare woon ki ñu déglu xamul dara dafay foog ne ñun ay rapport ñun ñoo xam ne dafa war a génn te génnul te président de la république nee na rapport dañ koy disqualifié yëpp génn te gis nga le rapport de Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko xam nga lan moo nekkoon problème bi da comme ni les na preuve <laughs> yóbbaale na ay preuve am ñenn ñi nee nañ le président Ousmane Sonko amul preuve te su génne woon preuve de document administratif lañ koy jàpp parce que rapport yi disqualifié wuñu ko woon maanaam publié wuñu ko woon président dafa am ay prérogatives yoo xam ne bu fekkee ne publié wuñu rapport bi même man ak yow bu ñu xamee li nekk ci rapport bi suñ ko waxee dañuy jàpp diffamation te ñemewuñu koo génne léegi nag loolu jëlee nañ ko fi bépp rapport bu génn léegi dañ koy publier nga am ci droit wax ci man ma am droit wax ci journaliste yi jàng ngeen tubaab donte sax déggoo leen tubaab. dañ koy bañ a waxante yooyu yëpp. donte déggoo leen tubaab parce que mënu ma mënu ma fi waa daara ci sax benn instant léegi. wax fi li mu fiy wax président Ousmane Sonko tontu ko li mu koy tontu ñu xëy suba presse internationale bépp tiitre que ne Ousmane Sonko dafay xeex góor jigéen ngeen ne day dëggal góor jigéen loolu bu ma non sànq ñu ngay wax ci beneen nit ku fi nekkul ci presse da jël mbubb journaliste nga sol taxaw kon dèjà assumer say responsabilité ci li may wax voilà bu mukk naan bu wax yéen bu wax nangam. bu ma nee yéen rek d'accord c'est-à-dire baax mu daal. non non affaire journalisme bi. non loolu du ngeen bëgg loolu du ko xam ah. parce que da ngeen yaakaar ne da ngeen di wax lu leen neex def lu leen neex kenn du wax ak yéen su waxee ngeen lu ma wax fii yëpp nga tànn ci mel ni biir ma maîtriser woo ko te li ma fii benn na benn affaire nga ci tànn nga ne ma woo ko te mënoon nga ma wax ne ma wax nga ci ndox mi maîtriser woo ko wax nga ci non xam nga lu ma daane xam nga lu ma daane moo tax ma ne. xam nga lan laa Sénégal yi maîtriser ñu ko Abdou. ak leen ci patriote yi. Mm. mooy taskatu xibaar nan la ñuy liggéeyee. foofu laay waxee quoi non ni ngeen di liggéey kon changé leen ko. changé leen parce que yéen yéen ñun ñoo tax ngeen di liggéey su fekkee yéen a ngi liggéey te ñun comprendre ñu ngeen liggéey changé leen méthode ñu mën a comprendre c'est-à-dire li am solo mooy li am solo mooy bi fi tubaab bi ñëwee wax waxam bi dem Ousmane Sonko tontu ko la mu koy tontu presse internationale bi yëpp titre yi mi ngi mi ngi ci ressource bi dañu titre que ne muy le monde muy le France 24 muy RFI muy le journal du monde dañu titre que ne président Ousmane Sonko dafa wax waa ji ne ko ak góor jigéen moom mën naa indi sax xeex ci diggante réew occidentaux yi ak réew Afrique ah. loolu leer la ah. waaye yéen seenu ñàkk dégg tubaab ngeen ne président Ousmane Sonko daf ne le mot góor jigéen moom dañ koy toloré. oh xam mais lu mu toloré fii a dugal ak nii nga ko bëgg canaliser. xam nga tey leeral nga wax ci nag ku ne fi ngay dégg loolu fi ngay wax naan fi mu gars yi ma dégg ndax lii laa bëgg a wax. mais yow ñu nekk ci organe de presse di wax chaque jour moom nga xam da ngaa ne da ngay ñëw pour leeral sénégalais yi information yi amoo droit naan kii nii la ko déggee nee la ko déggee da leeral mu leer nañ bu fekkee Ousmane Sonko dafa promouvoir góor jigéen da ngeen di xëy ni ko dajji Ousmane Sonko dafay promouvoir les homosexuels Sénégal yëpp dal ci kaw man ak keneen ak keneen su fekkee Ousmane Sonko dafa dégager responsabilité am ci promouvoir l'homosexualité ngeen ñu wax ci lu leer nañ ñu mën ko applaudir mais mënul dégager ay responsabilité ci loolu fekk fi la loi boo xam ne si Ousmane Sonko daf ne Sénégal donte nanguwuñu fi ak góor jigéen mais am na tolérance loolu Macky Sall wax que fii Sénégal amul kenn kuy dox fii ci amul tant que ñëwul mu def ay ay ay ay ci mbedd mi wala mu def ko foo xam ne waru ko faa def kenn daal ci ko loolu mooy dëgg. amul sax loi bu koy bañ de. mais dama xam nga Sénégal ñun suñu leeral ñu am na loo xam ne suñu suñu maanaam liñ naan suñu suñu deret moo ko jom tey bu gisoon benn góor jigéen léegi mu def lu mu war def ci mbedd mi ñun ñii dañ koy dal ci kawam léegi gis nañ fi sax bu yàggul jëf ju ñàpp yoo xam ne lislaam santaane wu ko du diine du dara kaw wax benn ko ci bàmmeel nit ñi mm-hmm. loo xam ne du diine du dara c'est-à-dire pour wax la ñun ñu toll ci wàllum góor jigéen kon jàpp nañu ñun ñun Ousmane Sonko dañuy ànd ak moom di ko bàyyi muy promouvoir ay góor jigéen kii yee Ousmane Sonko kon ñun tolluñu foofu quand ñun ay doomu soxna lañ ay nit daara lañ ay nit ñun ñi xam lañ ci ci ci bëgg dëgg ak di fonk dëgg ak ànd dëgg kon lu ñuy wax sànq nii rek ci méthode bi nga xam ne tey journaliste sénégalais yi jël nañ ndax su ma ne déggoon tubaab mooy loolu day leeral ne dégg ngeen ko mais ak tay tay lu ci ngeen nekk mooy li ñuy def yéen a ko tey que xam ne nguur gi moom jàpp nañ ne nguur gi daf leen interpellé parce que jàpp nañ ne nguur gi dafa bokk ci ñi dal seen kaw ñoom jàpp nañ ne ci lañ bokk parce que jàpp nañ ne ñoom seen doxalinu démb ak barki démb du ñuy wëy xam nga aide aide de la presse yi ngeen di wax xawma lan ak lan ak lan ñuy jël ay presse yu nekk Sénégal IATV nekk fii joxuñ ko sax 10 000 benn presse di jël ay 65 millions ay 70 millions la fu mu tagee mais kooku bu ci moom ba tax mu jug pour xeex ak bi ba pare jël organe de presse bu koo xeex ak régime bi jàppale sénégalais yi ñu waxal taxaw fii may ma daaneel seen ligne éditoriale d'accordul ak ñun moom régime man amul benn ligne éditoriale bu ma d'accord ak bu ma d'accord ah. man dama ko daan wax bi nekk opposition dama daan wax gars yi ne leen neex waaye waxal lu neex waaye bindal lu neex waaye defal mais lépp lu waaye wax na nga assumer ses responsabilités gars yi moom lu ñu wax daañu ko assumé man foofu rek laa nekk parce que comme lu ngeen wax di ko assumé bu ngeen ñëwee ne sénégalais yi dafa am benn waaye dañuy waxtaan ma ne ko soo duggee sa néeg nga jël sa whatsapp mooy gars yi li ñu xewal nekk ci groupe yi enregistré sa benn audio boo xam ne xel nga ko teg nga enregistré ba jàpp ne soo ko génnee nit ñi bu ñu la déggee dañuy topp loolu jàppal ne xel mi nga am ba di ko enregistré ki lay déglu moo la xel pour déglu dëgg la nit muy wax xaaruñu pour yéen ngeen xëy bind ci pour ñu xam li muy wax dañ koy déglu ba pare xëy xaar li xaar li ngeen bind lan la ñu xool ba xam constat na wala constat wul bu constat wee ñu ànd ci bu constat wul ñu dal ci Sonko wala ñu dal ci presse bu ko def lii rek la amul leneen ab daa mel woon ci waxtu. non émission bi tuuti na de. non <laughs> ab dañuy yem fi ba beneen rek. moom commencé moom commencé yàgg na de kon kon émission bi daa neex. daaw c'est-à-dire cest kon émission bi neex na quand même c'est-à-dire maa ngi am mbégte ak kontaan te ñëw Iyat TV euh, ci waxtaan bi di ñaan rek mu jëriñ nit ñi nga xam ne ñun ñuy déglu. Euh, dimbali ñu ci lenn aussi pour leeral nit ñi que ne da ngeen di jox réew. réew nag euh, du dëkk du quartier am réew lañ wax benn fan defaru ko ñaari fan defaru ko ñaani ñu tamit ndimbal ci ne baal leen nit ñu toog ñaari at ñetti at naan comme ni ko nit ñi di interpréter déedéet dinañ def lu ñu mën pour calmer yenn jeu yi waaye pour réew mi jaar ci yoon lépp lu mu jaral ñu ko bëgg yàq jaral nañu ngir mu jaar ci yoon mm-hmm. loolu nag li ci am solo mooy nguur gi na xam li ko tax a jug mm-hmm. te lépp lu mu nekk tamit ay pression wala ay waxi kasaw kasaw bu mu ko tax a teggi ci loolu defar nag soo ko bëggee faaw nga bâtiment bii ñu nekk taaru na lool waaye ay fan ci ginnaaw ko fi romboon fekkoon la ñu daane lépp laxas ko ay seng gas fi ay kan di ko tabax ba tey ñu mën a toog ci kaw di wax kon nguur gi faaw ñu tabax ko lu ñu fekk mu yàq pendant douze ans nag mënuñ ko defar ci ñaari fan wala ñetti fan il faut dire la vérité mais nag ñaan loolu du question de dañuy ñaan Sénégalais yi que ne dañu tële wala li leen liñ leen di gëm ne leen Ousmane Sonko moo faxoon nangam te defu ko ma leen wax ne Ousmane Sonko defagul sax déclaration politique générale am loolu il faut ngeen dégg ko ay nit dañu nekk ci réseaux sociaux yi di teel teel yi xamuñ dara ci li wax naan président Ousmane Sonko moo waxoon na def nangam def ko moo waxoon nangam président Ousmane Sonko defagul sax déclaration pour maanaam déclaration politique générale mooy ni mu a yore li ñu ko dénk. fi mu jëm fi mu jëm politique bi a définir. Mm-hmm. jàkkaarloo gut yi sax wax leen ko ba député yi d' accord ci ñu voté ko budget boo xam ne deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq la bi ñu ñëw tamit ngeen fekk ngeen gëm ne budget budget programmation lañ fi yëpp dama ko non cest dañuy ñëw fekk ñu natt ne lii moo dem ci ceeb bi lii moo jëm ci diw bi ñun nattuñu ko te natt nañ ko pare lu ñu ci mën mooy que ñu jël xaalis subventionné ko wala nangam ñun bëgguñu loolu li ñu bëgg mooy jël ci ay ay solution définitive kon sénégalais nañu ànd ak ñun ci dal nañu ànd ak ñun ci ni ñu ànd woon ak ñun nañu ànd ak ñun ci coloré aussi di wax ne maire nga xam ne lii moom dama ñor maire yi nga xam ne dañuy saboté nga xam ne bokkuñu benn bokkuñu coalition Diomaye di def ay déguerpissement ci seen quartier yi la veille tabaski nañ ko bàyyi puisque nit ñi bu déguerpissement amee police yi ñëw sànni lacrymogène xale yi xeex ak ñoom dañuy interpeller état bi directement état bi maa ngi leen di wax ne déguerpissé yi yëkkatiwul benn xale fi mu toog donte nag bu ñu bëggee defar réew mi day am ay déguerpissement. mais nekkuñu ci jamonoom daal. waaw dama ne donte bu ñu bëggee defar réew mi. dafay am ay déguerpissement yi mooy. du ñu bàyyi benn nit boo xam ne dafa bàyyi marché bi fa war a liggéeyee bàyyi benn nit buy jël trottoir bi wala muy jël tali bi wala muy jël mbedd moo xam ne du mbedd liggéeykaay mu fay liggéey mais nekkuñu ci moment bu ñu déguerpissé mbir yi nañ tëgg seen suñu responsabilité dama ne ci seen parti lañu bokk am na ah, yoo xam da ngeen nangu loolu même la bokk waaw léegi même ki ci bokk suñu parti ak ki ci bokkul suñu parti ñoom ñaar ñoo yem ci wax ñi may wax mooy nañu respecté xale yi respecté marchand yi xam ne sénégalais yi ñun ñoo moom nguur gi ay canadiens moomuñu ko ñun defaruñu ndakaaru pour bu fi bu fi Obama di ñëw wala bu fi Macron di ñëw ndakaaru set wala nangam nangam dañuy defar ndakaaru pour sénégalais gis seen bopp nañ bàyyi xale yi fi ñu toog ñun liggéey pour tabaski nag ba ñu nekk temps a toog ñu wax la ko nga bi jërëjëf jërëjëf amoon nañ mbégte trop ngir ànd ak yow nag ci waxtaan bi Abdou Diakhaté Saliou Pastef Touba joxante ak yéen dig dajee comme ci beneen waxtaan